Abdoulaye Wade a écrit au début des années 2000 un article qui dit l'Afrique n'est pas une variable d'ajustement. Et je voudrais rajouter que la Casamance ne doit pas être une variable d'ajustement pour le Sénégal. Et le Pacao ne doit pas être une variable d'ajustement pour la région de Sidi. C'est donc ici que je voudrais donc vous lui rendre hommage, mais également parler de notre politique sociale dans l'agenda de redressement national ci biir loolu xam ngeen ne président Macky Sall andi na fi lu ñuy wax bourse familiale ñun nag dañoo bëgg xoolaat mbir bi yaatal ko lu ñu fas yéene def ci biir loolu jigéen yoo xam ne dañoo yore njaboot te amuñu jëkkër dañ cee war a bokk ñoo xam ne dañoo am handicap bu métti dañ cee war a bokk retraité yi ñu nekk ci kër taax yi ñu nekk ci gë ci àll bi ñoo xam ne amuñu revenu amuñu retraite ñoom tamit dañ cee war a bokk on nous déshonore pas ici à Sédhiou chez mon père Ibou Diallo je voudrais lui rendre hommage son courage patriotique aussi. Nous sommes prêts aujourd'hui à défendre les intérêts fondamentaux de notre pays. Et c'est avec un grand plaisir, un grand honneur que ici, chez lui, le lion du Pacao, que, encore une fois, je rappelle au peuple sénégalais l'importance du courage patriotique. Alhaji Mbal Fodé Diaby Gassama mun ma saa Sénégal na Sénégal taamaan taamaan na Sénégal loon Salémata fo Saint-Louis Ourossogui Oussouye Katambi Tabatu Taslima Kata fo Bundu na Sénégal taamaan taamaan Sénégal problème ol ngeelon ne wala na ñing ko mbañingol waato sitale mbengake kilinti ala ñin bankota ala yadin bulu abal bulu le doit bi janne katol fanan bi janne le 24 mars nañol aliye wili aliyeta voté nga gagné